asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi tàmbale suñuy kàddu di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool tànn ak na ko ñëpp waxandoo sëriñ mun taxaa yàlla na fi yàgg tànn ñoo ngi sant bu baax ci jàkkaarloo gi yéen ngir am waxtaan wu jëm ci li nga xame ne dañ koo dëgmal kàddu yi nag ay kàddu yi cant lay tàmbale ndax fii ñuy waxe di kër sëriñ tubaa gi nekk ci Daaru Marnaan day firndeel li ñu fi dajale te it day firndeel ne ci ndigali sëriñ Muntaxa lañu ko teg li tax nag ñu jàkkaarloo yéen tey ci bis bi mooy dañuy def li nga xame ne sabab bi Tuubaa la jóge njeexital yi it Touba la jëm ñu ne woon bala ñu ci wax ak kenn dinañ daje taskatu xabaar yi nga xam ne ñoo féete Touba ngir waxtaan ak yom ndax li wolof di wax gën a jege gën a yay ñun ak yéen ñoo ci bokk yem ndax ñun ñëpp ci ndigal rekk lañu tënku yéen nag dangeen di pàcc bu am solo ci liggéey bi ndax bokk na ci ponki murit saadix da bëgg sëriñ bi ba yegg ci sopp ko di jëf ci moom foo toll di ko waxtaane doo ko gaaral te doo ko link xaar donc waxtaane Serigne Touba daa bokk ci ponk yi nga xame ni day day tënk murit saadix bi ginnaaw bi mu ci bokkee da cee war a sax waaye kon ku waxtaane sëriñ bi wax waxukaay donc seen teewaay daa am solo donc ñoo ngi leen ci sant fas yéene ànd ak yéen jotaay bi fas yéene nag ànd ak yéen liggéey bi ndax liggéey bi kat boo ko mënoon a tënk mooy jéem a xam sëriñ Touba jéem a xam ci sëriñ bi ndax sëriñ Touba kenn mënu ko xam te loo ci xamit nga laayante ko biir loo ci xamul it ñu laayante ko biir sëriñ Muntaxa bi ñu ko seetee ci ay kàddoom nee na bi mu xoolee jamono gis ni mu mel xam na ni lu dul xam sëriñ tubaa munta sowe jamono boo ko doon tënk ci baati tubaab da nga naan Serigne Touba est la solution nee na liggéey bii ñu sumbandoo ñun ñëpp nee na mooy liggéey bi gën a mag liggéey bi ëpp njariñ liggéey bi gën a gaaw nee na liggéey bi ñu sumb bu ne ñun mooy ñun ñëpp mooy ñun di yéen di képp ku di ab murit wala képp guddi ab jullit nee na liggéey bii mooy liggéey bi gën a mag liggéey bi ëpp njariñ liggéey bi gën a gaaw ndax mooy liggéeyu xamle sëriñ tubaa te xam sëriñ tubaa rekk mën a soowe jaam yi donc lépp luñ ci def wala ñu wax day dugg ci waxi sëriñ bi boo bëgg boo boo leen gisee ci dalili waxtaan ji ma tàmbalee ci waxi sëriñ bi mooy dañoo am yéene du ñu def dara lu toll ne tarfatal ay ni lu génn ay waxam walla ndigalam li ñu fi dajale mooy ci li ñu jëm mooy ay bis bi nga xam ne dañ koy amal fële ca Ndakaaru lu ko jàpp ñaari fan ci weeru janvier ba juróom benn fan ci weeru janvier ngir waxtaane ndonay sëriñ Touba ndono nag boo ko déggee mooy lépp amul dara lu ko génn ku sañoon bokk ci ñoñi sëriñ Touba donc ndono li moom kenn génnu ci ñi ko xam ak ñi ko xamul ndono li li ñu mën a laal ak lu ñu mënta laal loolu lii nag buñ ko sumbee mooy ñépp ci bokk amul kenn ku ci génn ndax ku ci génn mënoo génn ci li nga xam ne yàgg ci biir mooy yow li sabab loolu mooy Sëriñ Tubaa ci yërmandeem ak tëw féexam bi mu demee ba soob ko moom sëriñ bi mu wone lenn ci ay jeexitalam sëriñ tubaa benn nitaal lañ ko mas a xame kuñ naan Omar Ba moo ko gisoon ci archive nationale mu nekk négatif ñu bind ci ne mooy sëriñ bi ci jamonoy Sëriñ Abdou mu sotti ko indil ko ko sëriñ bi leerlu ko ni mu demee dëgg ku mel ne ceddu murit saadix moo koy gën a mën a nettali waaye boobu yi rekk lañ ci xamoon mu wër nag ànd ak yoonu murit di màgg fépp fu yoon wi dem ñu taf ko fa fépp fu ñuy liggéeye ñu taf ko fa fépp fi nga xam ne ñoo nga fay waxtaane sëriñ tubaab mu ne fa donc day mel ne day nekk màndargay yoon wi nekk màndargay murit looloo tax portale am solo jamono di dem jamono di dem ba mbas mi dugg ci atum 2020 ñu jékki-jékki gis ci benn site internet bu ñuy tuddee Delcamp bi nga xamee ne day jaay ay jeexital yu yàgg am ko tudd Mathieu Roblin dëkk Lyon dugal ko di ko jaaye cinq euros boo ko doon xayma ci franc CFA day nekk juróom benn téeméer mu waroon koo bàyyi ci sit internet bi lu tollu ci ñaar fukki ak benn def na fa fukki bis ak juróom-ñett balaa murit yi di ko xelmati li tax ñu xelmati ko nag daa amoon benn ci portele yi bi nga xam ne daa am ay mbind tubaab di ko wax légende légende ju bind ci la sëriñ Ahmadou Bamba mu nekkoon ci album architecte bi nga xam ne moo tabax jumaay njaareem boo gisee album bi dinga gis fi photo bi collé woon album bi li ci nekk ci photo mat na téeméer da ciy wax ak dundam c'est un album de vie fii laa jaar fii laa jànge mi ngi jànge Bordeaux école des beaux ba mu fa jugee mu dem Paris 1895 la am diplôme Bordeaux dem Paris dellu si Bordeaux 1904 lépp dañ koy bind ci album bi ba mu fa jógee mu dem bayon sur la côte basque ba mu fa jógee mu dugg Afrique nekk architecte liggéeyam boobu nag moo tax mu ñëw Ndakaaru jaar na Algérie Ndakaaru la grande post bi nekk Dakar moo ko def ci liggéeyam boobu la ñëw njaareem mooy ki làng ak sëriñ bi ci photo bi sol casque bi photo bi di tawféex ndax foto bi kat lépp lu ñu daan nettali ci xiisa di ñu ko wax ci melo di ñu ko wax ci jëfin dañ ko ciy gis danga nga ciy gis kennal gu mu kennal sunu borom ba fu mu dem la muy def mooy njëkk julli photo bi da nga ca gis liggéey bi nga xam ne mi ngi teg aw xeer te yoonu murit dañ koo dañ koo tënk ci ndigal tënk ko ci liggéeyal yàlla photo bi dinga ca gis jàmm muñum sëriñ mu neex mi nga xam ne dañ la ko doon wax ku mel ne sëñ Fallou Mbacké dina nettali fi ko sëñ Moussa di ko wax ci ay way ñoo am tawféexu dajeek moom gis photo bi ni bi siggee sëriñ bi leere ni sëriñ bi rafete gis wegeel gi nga xam ne mag ñi amoon nañ ko ci moom mag ñi àndoon ak moom weesu na ñoom nasaraan yi nga xam ne booba fii ci senegaal ak li ko wër kenn amul sañ-sañu tabaxal fi taxawal fi bâtiment bay tabaxal ju bay taxawal juma nga gis nañ koy xoole loolu di ak cant ay muriti murit jaar nañ fi ay génération génération jaar nañ fi ndax foto bi njëkk mi ngi feeñ dans les années quatre-vingt 1927 bi sëriñ bi di làqu ci suñuy gët ba bi kenn kenn gisul image bi ba 2023 2020 bi foto yi di génn benn boobu yi rek la amoon donc ñun ëpp ñu yéesuñu te cet jàppuñu loolu yi nag bi mu amee sëriñ bi def féex it mu am màndarga yoonu murit te jig ñu lool muy nosu bi ñu nosoo nekk benn say lijjanti fexe ku ci ne loo xor-xoral indi ba ñu am lool ñu wecceeku photo bi yóbbu ko nag ci këru saytukaay yi gën a mag ci àdduna nga xam ne seen xam-xam daa màcc jëm foofu ñoom ñu wéral ko dëggal ko kuréel boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ngi ci yoon wi lu mel ne diwaanu maharif sëriñ Abdou Aziz Mbacke Majalis jiite ko ak ñi mu àndal defoon ci ay saytu yi nga xam ne dañ koo tënk ci xam-xam waxi sëñ Mouhamadou lamin Diop Dagana ji di nettali jotaay boobu bii boo ko jëlee ci pàcc ci pàcc yëpp poñ par poñ day dëppook photo bi lool yi nag ñu am ci xel mu dal waaye li muy baax baax baax baax loolu wérul ci ñun lu wér ci ñun mooy li sëñ Muntaxa wax biñ ko jëlee indil ko ko bi mu ko gisee keroog ñi fekk jotaay bi ñépp la seen xol tooy ndax mbég mum ci am ak fum ko yóbbu mu nangu ko ne leer na nàññi leer na nàññi leer na nàññi ba muy ñetti yoon booba nag la bal bi tàkk ñu ne war nañ koo war war nañoo war nañoo nangu na nag moom la fi mu toll sëriñ bi bi mu ko jëlee nag nee na da teg ay kàddu na sëriñ bi faw mu feeñ li fi xaj lépp sëriñ bi munta feeñ fii ci àdduna nee na waaye li fi xaj faw mu feeñ la des nag bis ba rekk lañ koy xamee donc portale yi bokk ci màndarga ak jeexital yi nga xam ne sëriñ bi feeñal na ko ngir dimbali ñu ci noonu sëriñ bi digal ñu kuréel boobu yi nga xam ne moo saytu woon foto yi ngir ñu jëmmal ko ngir saytu aka sàmm bépp ndonay sëriñ Touba ñu tudde ko turaas muy tekki patrimoine ndono ci baati arab kuréel boobu bii nag ñoo jotoon ndigal ci sëriñ bi ngir jël portale yi yóbbul ko président de la république ndax moo nekk ci bopp réew mi te réew boo bëggee wax ak ña nekk waa réew ma da ngay wax ak bopp ba boo waxee ak moom mel na ne wax nga ak ñëpp biñ ko ko waxee mu jël ab dogal ne le patrimoine iconographique maanaam lépp li nga xame ne day indi ay jeexital ci wàllu image yu sëriñ bi dañ koy dugal ci le patrimoine national nga xam ne day nekk moomeelu réew mépp te loolu nag day tàbbi wala mu xelmati li nga xam ne sëriñ bi fa la woote te duñu yem foofu ginnaaw loolu yi ñu ngi monter dossier bi nga xamee ne loolu yi dañ koy dugal dans le patrimoine mondial de l'UNESCO nga xam ne àdduna sépp ko bokk ndax sëriñ bi kat wootewul pàcc wootewul lu mu boddi newul ñu ñuul ñi wala ñu weex ñi dana ana ñi dem ci yàlla moom foofu la woote donc danañ ko yóbbu dans le patrimoine mondial de l'UNESCO lu mu rëy rëy rëy nag wala fu mu yem du génn mukk ndigali sëriñ Muntaxa bi ñu dellusee sëriñ bi na yaatu ba ñépp jot ci ndax sëriñ Touba ñépp ko bokk sëriñ Chérif Fantama di Mbàkke mu sëriñ Fàllilu sëriñ bi jox ko ndigal ngir mu tabaxal mu taxawal kërug barkeelu tubaab yi di ko tudde musée nga xam ne bépp jeexi jeexitalu sëriñ bi ci li ñu mën a jot bu nuppee dinañ ko fa mën a jenc mën ko fa ñoŋal ba feeg junni at incha allah wala lu ko weesu feeg ñu wal bëftu ba mbirum sëriñ tubaa ci ay jeexital luy sàmm lay doon moom nag mooy jaamub yonent bi mooy liggéeykatub yonent bi ba lu yonent bi am dina am lu na xelmati yonent bi boo demee Istanbul palais de Topkati wala nga dem Médine da ñëw ñu ne la kat mantu bii yonant bee ko moomoon wala lii moo doon aw karawam wala lii mooy xeej wala jaasi bi te loolu ëpp na junniyaat at loolu mooy njariñu kërug barkeelu sëñ taxaa weesu foofu ne kërug barkeelu boobukat nañ ko def ci biir uniwersité bi complex Xaadimu Rasul ci biir langak këruk xasaayit yi nga xam ne moom la suñu mbokki taalibe yi isbu tarxiya tabax mu am këruk alxuraan am këruk xasaayit am këruk barkelu gi nga xame ne fa la ñuy def mboolem njeexitalu sëriñ bi ci liñ ci mën a jot mu nañu nag jot jot na xamle sëriñ bi ndax mooy liy dimbali àdduna ci loolu lañu sos ci ndigalam balaa ñu koy wax kenn walla fenn dañu fa dem ba noppi jot ndigal ci moom ngir samp ay bés bii ñu jëm bi may junj sànq ci samay tàmbali kàddu ay bis boo bii nag ma ngay xewe ca ndakaaru ci ñaari fan ba juróom fi ñuy tuddee musée des civilisations noires fa lañ koy defee programme bi dinañ ci ñëw foto yi nga xam ne ñooy original yi boo ko gisee lu ndaw la sotti bi nga ko set bu mag bi nga koy dog di mën a xàmmee waaye sept centimètres lay doon sur quatre dinañ ko fa def mu nekk juróom benni photo képp ku ko bëgg a gis boo fa ñëwee sa bët dina ci tege dinañ fa def tam yenn ci jeexitali sëriñ bi ci yum doon jëfandikoo loolu it képp ku fa ñëw sa bët dina ci tege di ci mën a barkeelu dinañ fa teg it maquette bi nga xamee ne muse boobu yi ñuy def kërug barkeelu googu yi ñuy def ci biir université bi dina nekk ca wet di nga xam ne jeexital yi bu kërug barkeelu gi nuppee fi lañ koy dugal loolu nag daa am lu yoonu murit baaxoo te sëriñ tubaab baaxoo ko te daa bokk ci melo yi mooy li tubaab di tudde autosuffisance ak subsistance mënal sa bopp di defal sa bopp moo tax ñu ne duñuy duñu jéggiwaan duñu tàllal loxo kenn nekkukaay ko defal ñu ko jumaay tubaa ji murit yi ci sëñ Modou mustafaa ba ci sëñ Fallu ba ci suñu jëmm yàlla ba ci fii ñu toll ñoo ko defal suñu bopp ba ñu demee ba may am jafe-jafe raay bi ñoo ko xëcc mu ñëw ñoo ko defal suñu bopp université bi bokk ci université mooy université bi mu gën a mag fi mu toll ci senegal ci njariñ ci dayo ci jëmi ñun ñii la Serigne Touba dimbali ba ñu defal ko ko jumaa jumaay Masalikul Jinaan Touba ca kanam gis ngeen liggéey bu rëy bi ñu amal dëkk bi tali yi mbedd yi lamp yi lépp murit yee koy def téeméer téeméer ñaari téeméer junni ba wala lu waay man ñu ne loolu kat nga xam ne moom lañ baaxoo woon di def duñ ko teggi mukk duñu woo mukk kenn ne ko kaay jëfal ñu ko lii sax da cee rawatine ndax liñ ne dañ ne photo yooyu nga xam ne mu murit yépp ci war a jot dañ koy sotti def ko ay barkeelu te dañ koy def njëg gi nga xamee ne fu waay lu waay am di ci mën a am am na juróomi téeméer am na juróom benn téeméer am na junni sëriñ bi digle ba noppi bi ñu ñëwee di ko ko wax dane ah dinaa jënd barkeelu jëndal téeméeri murit saadix yi nga xam ne bëggoon nañu ko te seen doole mayu leen ko ngir wone aw yoon ngir wane aw ndigal ngir won murit nag lii sama yëfi bopp la jënd téeméer kilifa yoon wi ñépp jënd ñépp barkeelu fi mu toll boo leen gisee ci internet bi ku nee ngi jënd ñee ngi ñee ngi woote sëriñ bi weesoog ñun foofu sax ne nag wax naa joxe naa ndigal jënd naa waaye damay bindal sama sama loxo bopp bind bismillaahi rahmaani rahim na jërëjëf jëfal sëriñ tubaa te yàlla tax loo ko jënde loo ci def jar na lu ko ëpp téeméeri yoon daal di signé ci suuf sëriñ Muntaxa mu sëriñ Basiiru mu seexul Xaddim le 13 décembre 2023 këyit googu nag lañ jël taf ko ci yenn photo yi moom la ñuy tuddee série limitée dinañ ci def lu toll ci juróomi téeméer bu jeexee jeex na boobu ñu ngi koy jaayee million ngir yëf yi gën a mën a ñoŋ donc lu waaye man Sëriñ Tubaa kenn deful lu ko yées kenn deful lu ko ëpp da ngay def yow li nga toll ak sa doole fa mu yem boo amee juróomi téeméer am boo am juróom benn téeméer am boo amee junni am boo amee million am donc noonu la yëf yi demee bu ñu paree nag le 6 janvier hôtel bi ñuy tuddee King Fat Palace ca salle ba gën a mag ba gën a rëy ba gën a rafet ca la ñuy defee waxtaan wi nga xamee ne mooy tëj xew xew boobu bii nga xam ne dina am ay xam-xam ay waxtaan yu am solo ci xam-xam ci ndono xam-xam boroom xam-xam yi gën a mag ci réew mi ku ne professeur Thioub nekk ancien recteur de l'université de Dakar mooy def la conférence inaugurale dinañ fa def panel yu mag ci suba gi ak ci ngoon gi ci waxtaane ndonoy sëriñ bi fi mu toll nan lañ ko mën a ñoŋale nan dit lañ ko mën a saytoo comité scientifique bi liggéey nañ lëkkaloo ceeg waa rawdu yi waa comité d'organisation màggal gi ñëpp ñëpp ñëpp tàbbi nañ ci mel na ne daal yëfi yoon wi waa tubaa ca kanam dinañ fa waxtaan waa Hizbut Tarqiyyah sëriñ Youssou Diop dina fa waxtaan ñëpp ñëpp ci bokk suñu sañoon murit bu ne di nga fa jël kàddu wax ndonay sëriñ bi ndax ci nga bokk loolu yi ci gàttal ci ci ci jeexital gi ñi sëriñ bi yónni dinañ fa ñëw ci ngoon gi sëriñ Chérif Fanta Madi dina fa jël kàddu jëwrin mbàkk yu fay nga xam ne mooy jëwrinu sëriñ bi foofu ci ndakaaru dina fa jël kàddu ñu ngi am yéene sëñ Ahmadou Badawi mi nga xam ne moo jiite université bi nga xam ne ci biir la le musée bi di ne mu jël fa kàddu sëriñ Bassirou Abdou Khadre mi nga xam ne mooy porte parole yoonu murit te sëriñ bi euh, newoon lu mu ñu ci digal rek moo moo moo ko digle dina ko darajal bis ba dina fa ñëw te dina fa jël kàddu président de la république Macky Sall nga xam ne moo jiite réew mi dina fa ñëw xew-xew boobu nag ñoo ngi ci woo. ñëpp amul pàcc bi nga xam ne bàyyi nañ ko ci biir réew mi ak bitim réew corps diplomatique bi ñu ngi leen ciy woo ñi nga xam ne ñu ngi def politique ci biir ci biir pouvoir bi ak ci kujj gi ñu ngi leen ciy woo opérateur économique yi ñu ngi leen ciy woo ñu ngi woo bépp tarixa bu nekk Sénégal ñu ngi woo jàngu bi ñu ngi woo kilifay aada yi ñu ngi woo universitaires yi ñu ngi woo liggéeykat yi opérateur économique yi képp ki nga xame ne mbirum Serigne Touba saf na la képp ki nga xam ne yaa jàpp nga ne yaa ngi ci biir nonay Serigne Touba te kenn génnu ci ñu ngi la ciy woo journalistes yi la presse yéen nga xam ne da ngeen a nekk ay tasxatu xibaar ba waay wax ngeen mën koo yóbbu de manière ci saa si fépp fu àdduna bi ne ñu ngi leen ciy woo presse bii nga xam ne moo nekk tubaa xam naa dinañ xool ak kilifa yi nu ñuy def ba ngeen mën a ñëw foofu yi ci musée bi mën koo couvrir semaine bi yépp ndax yéen moom seen yëfa ndax gën a jege gën a yay kàddu yi xam naa gudd na wóor na ma ne fàttu naa wóor na ma ne li ma fàtte moo ëpp fuuf li ma wax maa ngi seereel sëriñ tubaa ne li ci dëng lépp mana a Mbàkke lu ci jub yépp ñoo ngi la koy sante Serigne Mountakha Mbàkke yàlla na fi yàgg te gën a wér yàlla na fi yàgg te gën a wér yéen rek waaw. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu su yéen sunu bokki taskatu xibaar yi waaye sunu kàddu gi ñoo ngi ciy jiital nuyu boroom dëkk bi di cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér njabootu sëriñ tubaa gépp di sant Serigne Khadim Ngom mi nga xam ne moo doon leeral mbir mi yaakaar naa ne indi na cosaanu mbir mi indi na sabab bi muy feeñu foto yi indi na itam ndigal li nga xam ne moom la Serigne Mountakha joxe indi na itam yi nekk ci sunu kanam te muy ay jéego yu ñu war a dox loolu nag macha allah sunu borom def na tawféex ba tàmbali nañu liggéey bi bu baax te sóobu nañ ci. ndax ndigal lu yomb a jëfe la ndigal rek a jafe waaye jëfe ko moom lu yomb la te am nañu ndigal euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha nag day jëmm joo xam ne yaakaar naa ne ñun murit war nañu gën a amaat ci moom taxawaay war nañoo gën a jaajuwaat taxaw wan ko ne ko jekk nañ ci loo digle ñu ne ca loo tere loola kenn bañ ñu caa séen mu woote woote liggéey bu rëy nag boo xam ne ndigalu Serigne Touba la woon muy université bii fekkoon sëñ Serif di itam ci xelam mu rafet ak yitteem ju kawe jàppoon ne Touba mënta am te du am kërug barkeelu ñaari yitte yooyu daje nag kërug barkeelu bi tàbbi ci biir université bi sunu boroom itam def feeñu photo yi nekk. un élément déclencheur très important mooy kat niñ ñu ko indee rek ci contexte. Covid bi feeñ na addina sépp jaaxle ku ne di wut foo jëm mu mel ni sëñ Tuubaa danoo jubloo dalal wan nu boppam ci contexte boo xam ne moom ci boppam daa meloon ne ku nekk en résidence surveillée ba noppi di inaugurer un un événement heureux muy tegu xeeru jumaay njarim kon nun war na noo dalal sunu xel fii nag. fi la sëñ Muntaxa waxee woon kilifa gu ko seetsi ci jamono joo xam ne réew mi dafa jaxasoo woon ne ko fu ne mën naa am jafe-jafe ñu nekk mën nañoo jaaxle ba mu des fii ci senegal ndax ñun de amoon nañ solution bu yàgg baat boobu la jëfandikoo te mooy sëriñ tubaa sëriñ Touba la wax ne mooy solution bi sëriñ tubaa itam la wax ne wane ko mooy liggéey bi gën a kawe. ndax nee na bu ko nit ñi xamee rek toppi seen borom te nit ñi kat bi leen seen borom di indi fii leen dong la bëggoon ñu nekk ci mooy di ko jaamu ñun nag gànjar bu rëy bii ñu am muy Serigne Touba di tawféex ju réy joo xam ne gis nañu suuf si mu génnee ci ay dëkk yoo xam ne yu ñàkk solo la muy pétrole muy gaz ñooña di dund ba mel ni jana la nit ña liggéeyatuñu ña fa dëkk nekk ci jàmm kon bu ñu amee gànjar gu toll ni Serigne Touba mu wooñu ci loo xam ne ku ko ci wuy si am texe àddina ak alaaxira ñun kenn ëppuñu ñu ab liggéey ndax alaaxira nit ñi sóoraaleetuñu ko te mooy kër ga dëgg kon man li tax may wax mooy ndawi Touba yi ndawi yoonu murit ci woote màggal gii rek Serigne Mountakha soññ na ndaw ñi ngir ñu jóg jël seeni responsabilité ci liggéeyu sëriñ tubaab bi jël seeni responsabilité ci dëkk bi kon na ndaw ñu jógaat jaarale ko ci li nga xam ne moo ëpp ci li ñuy jëfandikoo muy daayira yi takkatoo ci ginnaaw kilifa yi nga xam ne ñooy rakki Cheikh Mouhamadou Mountakha yi ñoom ñu bootu ci kanamam mu nekk loo xam ne organisation pyramidale la saa bu waxee benn baat baat boobu kilifa gu ko dégg saraako ko jëwrinu daayira bu ko dégg saraako lu mu gën a yaatu gën a doon sunu njariñ ñun tey ak ëllëg nanu góorgóorlu ci wane Serigne Touba nañu góorgóorlu ci tàmbalee ko ci sunu jëmmi bopp mel ni sëriñ bi bëgg tënku ci ndigal bu wóor nekk ci jaamu yàlla gu wér te loolu moo tax sëriñ Touba ñëw fi noonu rek lañu mën a xettalee jamono jaxasoo na jàmm amul fenn fitna si yaatu na dëkki lislaam yi gis ngeen fitna sa fa xew waxuma la yeneen dëkk crise de valeur am na. nit ñi xam ngeen bu baax li ñuy dund ci jamono jii daanaka tuutee dox seen diggante ak yor melaw rabu àll kon warees na leen delloowaat ci melo wa nga xam ne moo taxoon sunu borom bëgg ñu wàcc fi te mooy jaamu ko jaamu gu sell sëriñ tubaa nag loolu rekk la solution jën koo jëfandikoogul nag parce que xam ngeen ne réew mi mu ngi ci situation boo xam ne ku ko xool xam ne li mu indi buñ ci tàbbee dinañu am te xeeg tey ak ëllëg solution bi mooy Serigne ba naka la doonee solution loolu du 2 au 5 dinañu am ay borom xam-xam yu daje waxtaan leeral ko nit ñi mu nekk programme boo xam ni réew mi dinañu ko jëfandikoo naka la doonee solution mooy bu xelu doomu aadama demee ba ne ndax yàlla am na kon amul keneen ku dul yàlla ku nu mën a sikki sàkk ak nekkam. moo tax jeexiti sëriñ tubaa yi li ñuy wax relique ci tubaab muy barkeelu daa bokk ci li nga xam ne day dëggal nekkuk sëriñ tubaa ndax yàlla moom lu dul jëfam lu dul jëmmam rek jëfam la te jëfam jooju mooy dëggal ak nekkam waaye sëriñ bi nekkoon na bu wér te firnde bi ci jëkk mooy li Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké def ci Amérique fañ waxoon ne sëriñ tubaa daa des ci géej gi ba mu fa demee ci jëmmam yóbbu fa carte di am la ñu xam ne kat sëriñ Tuubaa kon desul ci géej gi te laaj yépp dina dikk est-ce que kii ngeen di wax ne nekkoon na fi moo sañ ci dëkk bi amoon na lan moo ciy dëgg lan moo ci li tubaab di wax légende lan ngeen ci yokkute bokku ci te loolu kat barkeel wi rek ñoo ko mën a leeral ñoo ko mën a dëggal tàmbalee ko ci lim bind ci xalimaam ak melo wi mu bëgg murit mel ko ak lim jëf loola luñ ci saytu feeñal ko day gën a doon njariñ ci ñun bokk na ci it li nga xam ne am na solo trop mooy muccug barkeelu yi ndax li ne ci kër yi léeg-léeg mu doon wërsëku janax wala kaña ndax ci jafe te at yi tàmbalee bari yooyu yëpp bu ñëwee ci kërug barkeelu gi dana doon loo xam ne murit bu ne dina ci mën a tëg bëtam bu loxoom jegee mu laal ko xam ne sëriñam bii moo moomoon dàll yi moo bindoon lii ci loxo boppam moo yoroon kaala gi te sëriñ bi daf ñoo sas beneen liggéey mooy saytu jeexiti sëriñ bi fu mën a nekk ci àddina ndax kii doon expliquer dundam ak dajeem ak sëriñ tubaa du kenn képp mbooloo mu bari la fii senegal Gabon Côte d'Ivoire fu ci ne fu sëriñ tubaa jaar Guinée am na ñu mu dajeel am na ñu jëflanteeg moom am na ñu waxanteeg moom ba ci moritani am na lu mu bind bàyyi fa kon day jaadu loolu lépp ñu am taxawaay bi nga xam ne moo war ngir saytu ko lu ci mën a ñibbisi ñibbisi luñ ci mën a toppatoo ba mu nekk patrimoine bu ñu sécuriser ñu def ko alhamdulilah rabbil alamin loolu état bi lim ci war a taxawee def na ko ba mu mat sëkk ndax ministre bi nga xam ne mooy ministre de la culture ya mu war a toppatoo ba lépp loo xam ne bokkati na ci sëñ Tuubaa ñu mën koo sécuriser loola état bi def na ci taxawaayam ba mu mat sëkk ñu ngi ko ciy sant ñoo ngi woo itam mbooleem kilifay yoon wi muy fii ci Touba muy Ndakaaru jëwrin mbakki yu fay ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ngi Ndakaaru ak daayira yi ak jàngkatu xasida yi ak ndaw ñi universitaires yi surtout ñi nga xam ne curiosité intellectuelle képp leen tax a jóg ñooñu la ñu gën a soxla ñu ngi wooy taskatu xibaar yi bu baax rawatina yi dëkk fii ci Touba ndax seen taxawaay mooy ñoom li ëpp ci seen liggéey gànjar gii di Serigne Touba moo koy waral kon ñoo ngi leen ci woo woow boo xam ne dañu bëgg ngeen teewe pëstéef pa professionnalisme kese ngeen def ci seen xol def ci seen yitte ba fii ngeen nekk di liggéey ëllëg kenn ku ne bëgg fi ñëw daje feeg yéen def fi un documentaire def fi lu ne ngir bëgg a xam li coow li am fi mu amee ki ko amal ki ko waral kan la te laaj boobu ku ne war na ci mën a tontu kan mooy sëñ Touba ndax amoon na fan la dëkk ndax amoon na fekk njaboot lan la woote woon ndax sëriñ Mountakha li mu wax dafa leer de jaam ñi la wax génnewu ci kenn nee na leen rekk moo leen mën a sowe mooy xam sëriñ bi kon na ndaw ñi jóg xam seen responsabilité ci wane sëñ Touba surtout ñoom ànd ko kilifa yi nag ndax lépp daa war a tënku ci digal murit mënta jëf te amul digal li ci des mooy taxawal kër gi ci boppam këru këru këru këru këru barkeelu yi loolu jëf moo ko man te jëf li ci jiitu mooy borom wërsëg yi nga xam ne ñoom yàlla may na leen ko wax naa leen ni leen àddina ñi ci ëpp wërsëg dañuy créer ay fondation ak ay organisation non gouvernementale di yëngu ci li ñuy wax philanthropie te li ci def li ci ëpp jublu la boo xam ne daanaka day yàq société kon ñi ko yàlla may ci sun biir may leen wërsëg wu bari wi may ñenn ñi xam-xam war nañu daje ci ay projet yoo xam ne Serigne Touba tëraloon na ko ngir jëmmal luy defar société tey ak ëllëg université bi am na solo trop rëy na lool ndax musée bi dolleeku na ci kanzil kitaab dolleeku na ci am na këru xasida nañu séentu leneen ndax liggéey la buy dox boo xam ne taxawul ñi nga xam ne dañ cee war a nekkit war a yaatu dënn war a yaatal war ubbi seeni xel xam ne façon bu ne dina dikk loolu nag yàlla na amee ci taxawaayu Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na amee ci njiitam yàlla na ko sëriñ Touba loolu muy wax naan mbiru sëñ tubaa li ciy feeñ li ci xaj rek lu ci xaj moom ci ak nekkam yàlla na ci sëñ tubaa xaj-xajal mbiram ci di ko feeñal ba mu surcharge sëñ xaadim wax nga dëgg photo bi jëkk feeñ dañ daan wax sëñ Omar Ba bu ko bu ko bu ko bu ko sëñ Cheikh Tidiane si daan tudd da daan wax moom sëñ Abdoul Ahad ndax ni ñu demee woon ci wàllu archive ak recherche photo bi bi ñu ko indilee sëñ Abdoul Ahad dane nañu ko won soxna Faati Jaxate sunu maam waaye ni mu ko authentifié du ay wax dafa dafa tàggoog sagoom rek ñu xam ne mooma lii itam ñoom sëñ xaadim ñii indi woon photo bi keroog bi ñu gisee melo wi sëñ Muntaxa mel ba war ma nett liw ko ndax mbégte ak xaal ju mu amee xam nañ ni kii borom Tuubaa ku xool nag jëmm ji toog xool jëmm ji taxaw ci jamono jooju 1918 ku ñeme làng ko tubaab sax yenduwul ci réew mi. nga kaalawu ba jekk bëgg ba muuñ bi danga koy santiir ci bët yi boot say yoxo mbooloo mi la wër ñépp def tànki neen kooku boroom tubaa képp la mën a doon manta doon keneen mooma te sunu xéewal la te waxoon na maam Cheikh Anta keroog bi muy wàcc ci gaal gi Cheikh toppi leen sama mboor du ngeen ci gis mukk lu leen di rusloo mboorum Sëriñ tubaa duñ ci gis mukk lu ñuy kersaal duñ ci gis mukk lu ñuy rusloo lu dul lu koy yëkkati di ko màggal ndax li ko boroomam jaral te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaral ko ko loolu rek moo waral sunu taxawaay bi waral sunu liggéey bi ñoo ngi ñaan nag ñi ko jiite ñépp sunu borom kàttanal leen te wéral leen ba fu fuñ ko bëgg a yóbbu rek ñu yóbbu ko fu kawe njort asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.